moom li mu gën a bëgg ci kaw suuf mooy nodd <laughs> nee na daa bëggoon nodd bëggoon nekk noddukat mais xam na ni jigéen warul nodd nan lay def ma ne ko góor góorlu jur doom muy nodd mu topp doomam mi ngi Amérique doom ji doon jàng ba xaw a sori chaque jour mu topp ko doom ji di entraîné nodd di nodd ba jàkk bi ci seen wetu kër doom jaa fay nodd nee na première guddi timis bi mu duggee ci jàkka ji ñu nodd yaramam daw mu gestu xool muy doom ji rek mu ne këndëng këndëng wallaay ñu yóbbu réanimation da doon dee yàlla moo def tawfiq ba mu siggi wér noonu la nekkee guddeeg bëccëg di jooy parce que lim bëggoon am na ko mu woom ne ma oustaz kenn mënu laa fay doom ji moom ma nettali affaire bi nodd dañ koy njëkkante li ci nekk ci yiw ak teraanga allahu akbar ñun ñii fi toog ñëpp moom mi nodd dañu koy seede yowmal qiyaam yemul ci ñun de miir yi dañ koy seede caméra yi sax dañu koy seede sëñ bi lu gën a rëy loolu nañ ci góorgóorlu incha allah mm-hmm. baal ma imam li li affaire bi moo tax sama xel dem ci loolu quoi incha allah alhamdulilah si si si question yi la bokk loolu moom day tax euh, ñëpp daal di koy jox yitte rek hmm. mu mel ni kon dafa mel ni euh, message bi ngay joxe ni nit ñaa koy dégg macha allah yal na yàlla barkeel amiin alhamdulilah li koy firndeel mooy question yi fi jot a ñëw dafa takk lool dem na si ay vingt cinq ba trent questions hmm. donc euh, day wane nit ñi bëgg nañ xam bëgg nañ xam lool seen diine macha allah léegi mbokk bi moom li muy laajte moom nee na léeg-léeg dangay dégg ay waajur yoo xam naan man sama doom bugguma mu nekk masalan douanier wala avocat wala ay juftikat ak yooyu nee na loolu est day tekk ni métier boobu moo bon wala liñ fay niñ koy doxalee daal moom moo la islam euh, sib daal rabbil alamin dañ ko fee fekk mag ñi doon ko wax ndax li mag ñi doon gis nag lañ leen doon wan moo tax da dégg ñu naan la juuti dafa xaraam douanier avocat mais déedéet ci jëf bi la ak jëfin bi jëf bi ak jëfin bi ci lay dellu noonu mu valable ci moom la valable ci keneen commerçant beeg menuisier beeg leneen bi nit kiy liggéey bu ko liggéeyee teg ko ci yoon mën na caa bañ a am benn bàkkaar waaye bu defee lu ko neex su boobaa boppam la koy teg sànq dama dem ci benn waaye bu téewoon sama permis ma àgg ñu waxtaan mu ne ma oustaz mbaa xam nga ni yow yow la ñu gën a jaboliser ci Sénégal ma ne ko alhamdulilah loolu kay xam naa ko bu baax di <laughs> yow la ñu gën a jaboliser Sénégal ma ne ko xam naa ko bu baax mais oustaz lan moo tax ñëpp ñëpp jot ak yow ma ne ko ku mel ni yow moo tax ma jot ak ñëpp mu ne ma ah looy wax ni waxtaan bee gudd duma ko mën a mën a àggale waaye da ngay toll foo xamante ni euh, gis nga diine yàlla nañ ko yàlla may. amiin yàlla nañu yàlla dëggal ak incha allah mbokk bi moom nee na dafa bëggoon nga ñëwal ko si relation yi war a dox entre patron ak ki koy liggéeyal parce que neen dafa nekk ci kër di liggéey mais patron am daal daf ko xeeb. xeeb boo xam ne même xëy na bu ko toggalee ba jox ko da koy berek ak yu demee noonu xeeb ko daal nee nag yow pour nga ñëw si pour vraiment mu situation ba décanté wu. ndax xew na si kër yu bëri incha allah. Ah, loolu dara nekku ci lu dul bon jikko nit bu la yàlla wërsëgalee defal la ba nit ñëw ci sa suuf di jël wër wërsëgam war ngaa sant yàlla yaa ngi employé nit wër wërsëgam yàlla di ko jaaral ci sa loxo teraanga bii ku mu doyul dara dootu la doy dana ci doy rek li anas ibn malik wax nee na xadimtu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ashra sinin nee na fukki at nekk naa ko di liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musumaa wax lu tax nga def lu tee nga def lu tax nga def lu tee nga def yërmande gi yonent bi amoon la bépp employeur war a am ndax kii ci sa suuf boo ko xeebee di ko gëdd di ko yuuxu di ko jànni da nga bëgg a bokk ci aljabaabira da nga bëgg a mbëru te jullit du mbëru li nga am nii li tax yàlla jox la ko mooy nit ñi ci bokk bis boo leen beree génne leen nga ñàkk la nga amoon mu bu dee jigéen nañu respecte seen bindaan yi jëluñu ay baadoolo mais ay jigéen comme ñoom lañu jël ci kër gi ñuy liggéey dafa rafet sax ki lay liggéeyal léeg-léeg nga noppal ko dafa rafet léeg-léeg mbindaan bi fóot tey nga ni ko noppalul ñaari fan xam nga lu la koy wan moo yow bu fóotoon nu sa yaram di méttee xanaa moom machine la kon humanité dong dong dong moo ñu moo ñu séparé ki gën ci nit ñi nag mooy ki am ba pare xam lan mooy humanité xam luy insaaniya xam lan mooy nit li leen war a boole ñoom ñaar frère lañ mbokk lañ sœur lañ waaye bu ñu doxal patron ak euh, ki muy employé incha allah ci hmm. gàttal alhamdulilah léegi imaam déena ma léegi nee na ma am na ñu jógee ba Kër Massar ak bu ko gën a sori sax di ñëw di feccee si feccee si kii léegi nag nee na ma problème mu temps da day sóoraale ñoom waaw dëgg la waaw moo tax euh, xëy na ñuy limité question yi mais xam naa ñu jël benn wala ñaar am na sax ñett ñu jógee jas waaw mu ngi noonu ñoo ñoo gën a jóge sori ñi gën a jóge Kër Massar voilà mu ngi ko mais ala kulli haal uh-huh. loolu moom léeg-léeg day kii léeg-léeg da ngay dugg ci sujet boo xam ni daanaka dafay dafay dafay dafay xaw a xat. dëgg la loolu rek moo koy ak ñaare bi léeg-léeg maa ngi xool fii euh, vingt heures trente trois gisuma nekk vingt trois bi ci kaw. macha allah yooyu moo koy fa mais du nekk suñuy jubluwaay donte benn aaya la ñuy am sax dañ koy faral di sóoraale incha allah. question yi am na solo léegi mbokk bi moom nee na euh, jigéenu euh, jigéen bu wasin bees biiram di metti loolu est-ce que am nga si solution ay tegtal. waaw kooku jigéen bu wasin bees biiram di metti loolu yomb na loolu yàgg naa ko fee joxe. mooy na ut euh, mbantamaare xottu butéel saab-saab xobu màngo mbantamaare xottu butéel saab-saab xobu mango su dee métit bi day nekk métit bu yàgg mu boole ci ngéejaat ñett yi bu ko toggee ba mu ñor saa bu lekkee mu naan kaas def ko suba ngoon waxuma la métit biir mais mérit bi yépp day deñ su fekkee nag biir bi dafay metti di ànd ak newi newi mu constipé na jël njàndam ak lay duur seeni xob togg ba mu ñor di ko naan loolu da koy dindi incha allah. Mm-hmm. mbokk bi moom nee na man damay faral di mer gaaw a mer lool te du ma xam du ma xam li ma koy yóbbee daal loolu nag euh, ma doon laaj ustaas yi loolu lan nga ma siy loolu seytaane moo koy def yu waswisu fii suduri naas seytaane bu la duggee wala mu jege la wala nga may ko bunt dangay ngay jékki di mer doo xam la tax mer booy sëy bu yàggee sa sëy tas soo yoree jabar bu yàggee sëy bi tas ñaari baat nga yuuxu xulli bët boo paree da ngay rus seytaane koy def moo tax yorant bi sallallahu alayhi wa sallam nee ku mer ci yéen wax audu billahi min asheytan rajim wala mu naan ndox wala mu jàpp mu jéem a dal te mu jéem a xool loolu nekk ci moom foo fekk kuy mer kër bi di battre bu baax kooku nagaaw mu dem faju seytaan lu ko moy rek dana fa jaare am crise cardiaque te baaxul incha allah rabbi kon xam naa ñu mujjee si question bi yeneen yi ñu leb ko ba dars bi di ñëw incha allah ndax li duuf si nag li xajul si cin li euh, mbokk bi moom nee na euh, nee na <clears throat> yaayam dafa wax ni euh, ibaadu yi daal ñoom dañoo dañoo metti dañuy dañuy takk di bàyyi ak yu demee noonu loolu nag moom metti na ko trop wax na dëgg de waaw nee na nag oustaz loolu lan nga siy conseillé mbokk yi daal <laughs> ibaadu yee dàq takk ñoo dàq fase waaw sa day wax dëgg de gaa yaa ngi xool di ree de mbaa agressé leen ah wax dëgg rek moo am de ni ñu mën a takkee jabar la ñu mën a fase ah dée kay boo ko dee kenn généralise wul kay ah ah ah génn de dégg déggoo li ma man kay dama ne kenn du généraliser mais la ma wax noonu loolu moom lu am la waaye nag dinaa joxe raison yi tax bokk na ci sëy ni koy maire yi jàppeek paa yeeg ñenn ñi dangay gis ni couple bu sawarul ci jaamu yàlla couple iblis la ñooñu seytaane soxlawu leen da leen di bàyyi seen gundaandaat ñoo xam ni bu ñuy tëdd duñu jàpp seen yoon ku mu neex julli ku mu neex bañ a julli bu ñuy sëy sax xamuñu lu ñuy ñaan mënuñoo moytu seytaane mais ñii ñu ngi ci équipe bu seytaane te leen di noppal mais ki nga xam ne dafa ne ahlu sunna la day tànn jabaram ci critère critères yi mu ko war a amee bëgg di jaamu yàlla jigéen di jaamu yàlla mais ñoo ñooñu ñoo attaqué Iblis guerre Iblis attaqué leen guerre te dafa bokk ci fooru Iblis buggul sëy bu dem bugg ko li ko gënal mooy li alxuraan wax yufarriquuna bayna al mar'i wa ji sa jihaad yow mi nga xam ne demoo jihaad xam nga lan la yow jigéen ji yaa ci jiitu jigéen ñi dañoo ñëw ci yonent bi ne ko góor ñi dañuy yóbbu yaa bàyyi leen yonent bi ne ko ne leen am ngeen jihaad boo xam ni amul dóorante jaasi waaye nag wa qalilun na man yafal nee na lu néew ci yéen ñoo koy def yéen jigéen ñi am ngeen front boo xam ni da ngeen fay nekk toujours te duñu leen gor jaasi du ngeen gor jaasi ñu ne ban la mu ne seen jëkkër yi seen sëy yi toppatoo ko te yàlla tax tey ban jigéen nga fekk mu mën lu mel noonu bariwut ndax yonent bi moo ne wa qalilun minkum lu néew ci yéen ñoo ko mën góor gi moom it am jihaad bu mag mooy dañu ko may ne ko téel xam li gën a metti tée koo xam ne yaa ko yilif di ko dundal di ko defal ba pare boo ne benn mu ne fukk loo wax mu teg ca loolu jihaad la kon lan ngay indi fàttalikul ne raxma lañu la dénk yow góor gi dawal xëcc raxma teg ko sa wet te mooy yërmande kii boo ko xoolee ni sa sœur boo ko xoolee ni sa sœur wallaahi lu mun a def da ngay reetaan kontaan da ngay reetaan dangay kontaan waaye boo jàppee ni jigéen laa takk rek bu yuuxoo ma yuuxu doo ma dàq yuuxoo du ma sa morooma du dem du dem jiyaat bi nag góor ñi dañoo bàyyi jigéen ñi bàyyi te jëfandu la laaj li gën a metti ci góor mooy yore jabar mu nekk ku terrible nga mun koo muñ di yomb société bi ñëpp lay xeeb waaye booy yow tàppat nga quoi sa jabar ni mu la yilifee quoi yow booy ma danga kii nga commencé di wane ak fugg mooy maa tey ngay taxaw boo ko defee sëy bi du dem wallaahi loolu rek mooy problème bi waaye nag bu ñu gënee góorgóorlu amaat compréhension jàng yonante bi lu ko waa këram doon wax muy muñ saxaaba yi Umar ibnu Xattaab Iblis ñemewu ko jigéen su ndaw poñe ko <laughs> Umar góor xaraatu dikki Umar dara Umu Kalsum ko ratt poñe Umar xool ko yëngal bopp bi dem ci yonent bi wax ko yonent bi ne waa këram xoola ñii toogi <laughs> liñ la def rek lañ ma def de <laughs> kon loolu lay wax de salaamaaleykum wa rahmatullah